dinañ ci dalal ab gan may fàttali nag gan gi professeur Adams Tidjane la Adams Tidjane nag nekk ci institut euh, supérieur euh, institut des médias buñ ko mënee institut des métiers de l'environnement buñ ko mënee duppee noonu nga teew fi nag tey jii ñu fas yéene wax ci li nga xamante ne moom mooy euh, mesure bi nga xamante ne daanu na mu nekk nag lu am solo ndax lañu ñu seetlu muy jëfandiku gi ñeel plastique yi fii ci mm-hmm. Sénégal li fiy dugg rek xayma nañu ko ci million ak lu topp mën a nekk nag ay njeexital yu am solo ci wér-gu-yaramu doomu aadama gannaaw ba ma la nuyoo nan nga jàngatee li nga xamante ni moom la ñu nemmeeku ne dafay dugg ci ay plastique at mu ne fii ci Sénégal. waaw maa ngi rafetlu invitation bi maa ngi nuyu auditrices ak auditeurs yi euh, aussi puisque ñu ngi si at bu bees ma leen di souhaiter mes meilleurs vœux euh, bon problème plastique bi nag c'est vrai ça ça a toujours été un grand problème pour. Euh, pas uniquement pour sénégalais yi mais je pense réew bi yëpp la parce que tey ji boo duggee capital bu nekk wala dëkk bu nekk plastique yi fépp nga leen di gis mais il faut dire que lu tax loolu am c'est parce que la collecte des plastiques kenn du ko def bu baax ramassage plastique parce que bu ñu ko doon def bu baax du am problème c'est vrai que cette mesure aujourd'hui elle est ñu ngi ñu ngi koy rafetlu parce que plastique jàngoro yi muy indi si dëkk bi dafa bari en terme de santé en termes de perte de biodiversité donc il faudra que c'est une mesure salutaire. yéen ñi ngeen xam ne yéen a ciy def ay gëstu di liggéey ci wàllu woowee wax nga ko léegi. Mm-hmm. Euh, li muy def euh, ci doomu aadama ci wàllu wér-gu-yaram bari na ay njeexital yu bari yu mën a indi. Mm-hmm. Euh, ci tënk lan la mën a gàllankoor doomu aadama yi parce que ñu bari ba nëgë ni xamuñu dëgg-dëgg ne chasser plastique yooyu dafay lor. waa lu muy rob bare na parce que boo jëlee simplement boo jëlee plastique nga bàyyi ko si benn si benn bërëb. ndox bi bu amee ndox bu taa si kaw plastique bi dafay indi moustique yi di di di fi reproduire donc moustique yooyu ñëpp xam nañ ñoom ñooy joxe paludisme te paludisme ñëpp xam nañ dafay rey loolu benn la aw si plastique yi boo boo ko bàyyi si si environnement bi si jaww bi léeg-léeg da gis ay xar wala ay nag di ko lekk loolu daf leen dafay fatt seen estomac daf leen di rey loolu tamit c'est dangereux plastique yu ñu sànni si biir géej bi aussi da gis par exemple ay euh, tortue yi duñ koy lekk. te loolu mënuñu ko am na yu bare donc en terme de perte de biodiversité en termes je dirais impact sur la santé am na mais je pense que l'impact le plus important mooy pollution visuelle boo duggee si si bërëb si dëkk lu ngay jëkk a seetlu mooy plastique yaa ngi fépp te loolu dafay ñaawal dëkk te xam nga ne Sénégal c'est un pays touristique euh, daanaka tey jii boo amee dëkk boo xam ne ne ay bërëb yoo xam ne rafetul touristes yi dootuñu fa ñëw donc c'est une perte pratiquement de devises loolu tax plastique nu tere ko et je pense que c'est une très bonne mesure. Euh, dinañ ci gën a xóot lu jëm nag ci te rek euh, sachet plastique yooyu ci euh, Sénégal niñ ko waxee kon loi bi dugg na loi boobee nag am na ci gox yoo xamante ni gox yooyu la ñu njëkk a tànn ci Sénégal ngir daal di ko fay mattale nee nañ nag mesure la boo xamante ni képp koo xamante ni sàmmoo ko yoon dana dal ci sa kaw mu mel ni am nay ay daan yoo xamante ni fas yéene nañ ko teg ci ñi nga xamante ni naruñu jël dogal ci mesure boobee Maimouna Ndiaye lañ ci àndal ak Thierno Laurent Mendy xayma bi boo ko déggee daanaka da ngay yéemu. bis gu nekk juróomi million gu sachet plastique dinañu koy jëfandikoo. ay fan yi ñu génn ñu jëloon dogal ni dañuy tere mbuus yi wante it bu ñu sukkandikoo ci borom xam-xam yi du mbuus yépp ana naka lañ koy xamee. c'est ça qu'on appelle sachet bretelle donc dans la partie supérieure. lii la ñu woowee sachet bretelle gis nga ci kaw lu mel ni bretelle googee ñu mën ko ubbi lépp ngir yombal lañ cee def. yoon wi nag andiwul xaaj ak seen ci lu jëm ci couleur sachet yi waaye jàppal ni sachet boo xam ne ni faible micronage la dañu kaa euh, tere. Conviction, quelle que bu fekkee loi boobule tëral nañ ko tey jii ana lan mooy soppeeku. à la place li ko dalee euh, tey euh, sachet yi yëpp duñu ko mënati joxe nii rekk kon ci fan yi di ñëw dina am njëg goo xam ne nii moom le ministère bi di taxawal. pour fixer le prix toll nii saag yi nga xam ni papier lañ ko defaree moo fi sees wante it am na luy ñuul ci soow mi. waaye am nañu euh, jafe-jafe ci lu jëm ci euh, saaku papiye yi ndax ci bant lañu koy liggéeyee bu ñu koy jëfandikoo nag dafa mel ni. dañuy yomba rekk nit ñi dagg bant yey ñuy def te duñu ko teg ci yoon kon saafara bi mooy ñu teg ab sart goo xam ne ni ku jalgati rekk ñu fayloo ko sénégalais yi nga xam ne dinañuy wéy di utilise sachet yi dina leen rekk teg kon ay daan li ko dalee ñeenti fan jàpp fukki fan ak benn ci weeru janvier mu am ay bis yoo xam ni dañ koo sumb ngir ñaax askan wi ñu moytu mbuus yi ñu tere rawatina jaaykat yi. mu nekkoon reportage bu mun a Ndiaye ni ñu ko gisee Adams mu nekk loo xamante ni kon lu lu lu yéeme la waaye nekk na loo xamante ni tam ñi ngi xel ñaar ndax dina yomb ñu matale ko ci Sénégal maanaam euh, bu fekkente ne teg ay daan rek moo fi sas kon mu mel ni ñu ñu war a teg ñu mën a teg ay daan dana bari ndax euh, Sénégal yi pour bàyyiloo leen lenn dina jafe est-ce que am na ay stratégie yoo xamante ne mën nañ ko def pour mën a tàggoog li nga xamante ni moom mooy sachet yi. waaw sensibilisation. c'est-à-dire que il faut que ñu dem si askan bi sensibiliser ne leen sa plastique baaxul loolu il faut que ñu wàcc si bërëb bi wàcc si marché yi neen ne leen vraiment sachet plastique baaxul ginnaaw mën nañ ko remplacer ak sachet en papier je pense que doo am problème c'est vrai que euh, euh, sachet en plastique lu mu mun antenne sachet en papier mënu ko antenne euh, mais je pense que il faut aller ñun dem vers un je dirais une méthode durable méthode durable mooy lan sachet papier sachet plastique ce n'est pas une solution durable une solution durable mooy nga am comme suñu maam yi avant dañoo amoon ay kaaba yoo xam ne ne boo demee marché wala ay panier. sachet papier nga ne du solution lu tax non c'est pas une solution parce que le papier pour defar sachet en papier il faut nga dagg ay garab dagg ay garab ça veut dire que quand on sait que garab dafay absorber le CO2 bokk responsable du réchauffement climatique ça veut dire que yaa ngi contribuer au réchauffement climatique. yaa ngi contribuer à la sécheresse à la déforestation te aussi pour défaire de sachets en papier sa demande beaucoup d'eau il faut nga am ndox bu bare te ndox actuellement ñëpp xam nañ ne dans les décennies à venir ndox mooy tax di nga gis dina ñàkk di gis ay ay réew di xeex ndax ndox du dootu nekk pétrole wala kii ndox mooy tax donc loolu yëpp boo boo ko jëlee c'est un problème donc le sachet en papier c'est vrai c'est biodégradable et tout mais pour defar ko c'est très coûteux et ça, ça a des conséquences euh, vraiment, euh, je dirais, néfastes pour l'environnement et pour les, humains. Euh, dinañ wax euh, ci mesure yooyu wax nga ko léegi di ay mesures d'accompagnement yoo xamante ne war nañu ko jël waaye tamit war nañu gën a sensibiliser nit ñi moo tax sax nemmeeku nañu yenn ci marché yi foofee nag gis nañ ni matuwaay bi rafetlu nañu ko bu baax a baax waaye ñi nag di commerçant yeeg waaye jëfandiku yi nee nañ nag nguurug Sénégal lu jiitu waroon naa jël ay mesures d'accompagnement ngir nag mbir mi bu daal daanu mën a oyof ci kaw askan wi ay sotu pay lañ ci àndal. yëg nañu ko ñu xam it ne tey jii la wax war a dakkal jëfandikoo yenn ci mbuus yi wante faw ci ñoom si seen kàddu. mu am ay mesures d'accompagnement. ah ñun yëg nañ ko bu yàgg avertissement bi yëg nañ ko bu yàgg yàgg. léegi nag ah, ñun koy léegi yéen la ñuy laaj gouvernement bi tëddee mbuus yi xanaa dinañu fi tegal leneen parce que ñun dañuy liggéey te mënuñu liggéey duñ jaay duñ jox leen mbuus. maa ngi jaay kii naana su ma ko deful ci mbuus ci lan laa koy def. ah yéegoon nañ ko de kon xamuñu woon ndax tey dañu arrêté nag kon de suñu ko defee nañu indi ni coono parce koo jaay day wax dañ koy def ci mbuus waa léegi su mbuus amul fu ñu koy def. du nag commerçant yi rek waaye itam ci askan wi wax ji benn la. waaw mustuwaal yi ñuul lañu interdit waaw. waaw parce que moo tax benn instant yaa ngi wax naan mbuus yi dafa bëri loolu moom xam naa si parce que mbuus yi tamit benn dugal lekk xam nga mu mu mu tafu si xam mu nga ko lekk wala dara moom pour ñu interdit ko mais nag je préférais avant ñu koy interdit ñu beneen boo xam ne dinañu dinañ ko dinañ ko remplacer quoi. soxna si noppal boppam ndax buy ñëw day indaale fu mu def ay nduggam. mbuus yi ñu may jox ci supermarché yi moom laay demee marché pour bañ ñu di ma jox tout temps ay mbuus yoo xamee nekk dama koy sànni daal. de de de protéger l'environnement. de protéger l'environnement. bu ñu nee loi bi nag day bokk ci liy xeet ngir protection de l'environnement am lu bari lu des ndax naam loi bi taxaw na te tëral nañu ko itam kenn xamagul fan la war a taxawee. Euh, kenn xamagul fu loi bi war a taxawee ay satu euh, pay euh, dinañ wax ci mesure d'accompagnement yi professeur wax nañu ko léegi faw ay mesure d'accompagnement waaye lu jiitu loolu rek ma bëgg nga tënkal ma li nga xamante ni ñu bari ci askan wi umpale nañu ko ndax lu jëm ci mbuusu plastique yooyu léegi léeg ñu ne déchet plastique waaye ci déchet boobu sax ci ab étude bu ñu xamante ni mën nañ ko nee nañ lu toll ci téeméeri junni déchet plastique yooyu juróom-ñetti fukki junni kese moom lañ ci recycler liggéeyaat ko peut-être partie boobu ne nu mën recycler industrie man tey jii ñun am nañu benn technique bu bees pour recycler ay déchets plastiques tey jii boo demee université de Dakar boo demee boru rectorat on a na nu ay pneus ak ay déchets plastiques duñ si def ay toogukaay ak ay taabal donc ça veut dire que on peut recycler plastique mais nag c'est vrai il y a du euh, recyclage industriel peut-être moo xaw a jafe dafa laajte nga am ay équipement yoo xam ne yu sophistiqué mais je pense ni def tey jii ak pneu yi ak déchets plastiques yi loolu mun nañ ko def à l'échelle du pays ba nga xam ne ni tous les plastiques yu nu collecté mun nañ ko recycler au niveau de l'université def nañ 300 assises pour xale yi et cetera ay toogukaay ay table pour xale yi mun a jàng ak yooyu le recyclage est possible ñun man def naa suma thèse si plastique laa ko defar on mais il faut nga xam tuuti en termes de recherche dafa am benn recherche bu war a jiitu recherche boobu boo ko defee tout plastique peut être recyclé tous les plastiques qui existent mënoon ko recycler tey c'est pas impossible. waaye chiffres yi ñu yi may énuméré léegi loolu dafay wane rek ni que liy dugg ci plastique. Euh, maanaam li nga xamante ni moom mooy des di yàq kiw gi. Mhm. moom moo ëpp ci li nga xamante ni mën na jariñ askan wi. yëpp mën nañ jëriñ askan bi pour man. Mm. parce que tey ji man plastique pour man se n'est plus un déchet. pour su suma liggéey plastique c'est ma matière première moom laay liggéeyee lépp boo bëggee ma defal laay toggukaay mun naa plastique lay soxla ak ay pneu donc pour man léegi mënu ma ne plastique yi léegi c'est un déchet pour man plastique c'est une matière première et bu ñuy liggéey pneu yi xale yi bu ñu dem di foot plastique di for ak ay bouteilles duñ doon ñëw di ko jaay. kon lan ngay bëgg a wax foofu mesure bi ndax euh, mënoon na am beneen anam bu dul. c'est-à-dire euh, que si on avait réfléchi on aurait pu faire une mesure d'accompagnement boo xam ne ne mënoon ko ga mais c'est pas il faut pas fustiger le plastique en disant que plastique amatul njëriñ ça peut être recyclé le recyclage peut se faire de manière manuelle comme on peut faire un recyclage de manière industrielle. kon problème bi daal mooy ramassage bi daal yow ci nga moom nga gën a jox gëdd daal c'est la collecte euh, kon loi bi mënoon nañ ko booy seet sax euh, am neneen nuñ ko doxalee du dul tere ko tere ko nii parce que tey ji bu ñu organisé woon collecte yi mhm. si bërëb bu nekk ñaata emploi ne ñu mën créer pour xale yi ñu def collecté plastique yi ne nu ah man am na ay plastique comme xale yi tey ji pneu yi man pneu duñ ma koy jaay avant pneu duñ ko na may ma koy jaay donc le fait ma mun ma yëg a cycler boo xam ne nit ñi ñu ngi si gis seen bopp di si am ay revenu c'est ça qui important. ak lu mën a doon moom loi bi moom nekk na en vigueur. ba noppi en vigueur. Euh, kenn mënatu ci dara mën a. mbaa nga xamante ne dellu ci ginnaaw dina jafe. waaye lan nga yaakaar ni tey bu dellu ginnaaw. Mhm. parce que aussi il faut nga xam dara. Mhm. y a que mbuusu plastique yu ñuul yi moom noonu tere mais yeneen plastique yi ñu ngi koy jënd mu ngi fi ba léegi yooyu tamit ça sera toujours un problème tey jii tere noonu euh, sachet plastique yu ñuul yi mais sachet yi ñuy naanee ndox. taasini naanee café wala di ko naanee euh, dute si si tali bi kooku kenn terewu ko kooku c'est un déchet plastique loolu lu ñu siy def il faut trouver une solution. ngir jeexal mesure d'accompagnement bi nga xamante ni moom la ñuy sàkk boobu ba léegi. lan mooy euh, meilleur moyen maanaam mesure d'accompagnement yoo xamante ni moom moo gën a taxaw euh, pour nguurug Sénégal mën cee soobu par rapport ak jaaykat c'est vrai que tey amatuñu. Euh, plastique fu ñu dugalee tey c'est vrai que boo jëndee naanaa wala nga jënd jën plastique moo gën a approprié mais dootuñu jë jël mbuus plastique yu ñuul yi mën nañ jël yeneen plastique yu gën a dëgër sa veut que tey jii yow booy dugg marché da ngay yóbbaale sa plastique boo xam ne na dëgër na mun nga koy yóbbu dix fois marché chaque fois boo demee jaaykat bi dugal la ce qui donc c'est ça aujourd'hui un comportement durable du citoyen il faut que ñun tamit ñu ce n'est pas uniquement l'État mais il faut que ñun en tant que citoyen ñu changer comportement nga boo amee benn mbuus comme ndaw si lu mu koy defee mbuus suñu koy jox si euh, comment dirais-je euh, boutique comment casino yi wala kii moom lay jël di di ko duggee marché foofu lay dugal euh, ndugam. wala ñu dellu ci li fi maam yi bàyyi wax nga ko léegi. waaw éventuellement les kaba wala saaku wala pañe yi ak yooyu moom la ñu duggee moom da nga koy jël benn di nga ko duggee dix fois vingt fois du yàqu. ñu di la jaajëfal bu baax professeur Adams Tidjane may fàttali ni yaa ngi euh, jógee kon ca institut euh, des métiers de l' et de la météorologie ñu di la jaajëfal bu baax euh, ci li nga ñu wuy si xibaar yi ñuy woyal ko nag.